kon asalaamaaleykum euh, mbokk yi euh, mbokk yi journaliste yi nga xamante ne euh, ñoom lañ jàkkaarloo di leen nuyu bu baax a baax di sant bu baax seen ñëw fii di wax ne li waral ndaje bi yaakaar naa suñu woyee presse mu ñëw moom information lañ leen di jox may wax leen li waral daje bi li waral ndaje bi nag xam ngeen lu yàggul dara président Macky Sall dafa def lu ñu naan découpage am euh, découpage boo xamante ne def nañ ko euh, ci département de Kër Massar jaar Sangalkam Tëngéej am dëkk yoo xamante ne yokk nañ ci am ñoo xamante ne wax dëgg yàlla euh, delloo nañ fu mu fu mu jógewoon woon ñun nag ñu am ci gis-gis en tant que en tant que nit koo xam ne day jàppale askan bi gis la nga xamante ne njëriñ askan bi la ma war ci wax sama wax loolu moo tax ñuy def point de presse bi li ko waral mooy ñun dañoo nekk ci département de Rufisque depuis ay at yaakaar naa dañoo judd rek fekk suñu waajur yi at yépp ñu nekk ci département de Rufisque département de Rufisque nag eh, sori nañu lool jegewuñu bu baax eh, te ñu nekk ci ay at yoo xamante ne wax dëgg yàlla gis nañ ci jafe-jafe yu bëree bëree bëri yoo xam ne suñu dëkk mooy commune Tivaouane Peulh Niague eh, mu ngi jàmmarloo ak jafe-jafe yooyu ngeen gis eh, jafe-jafe yi ci am yëpp du ñu gis sax ku dekk ci département bi koo xamante ne autorité la dina ñëw soutenir waa commune Tivaouane Peulh ñàkk eh, ñu gis tamit eh, ñun Kër Massar moo gën a jege ci Tivaouane te Tivaouane Peulh dëkkuwaay la boo xamante ne moom ak Kër Massar ñoom ñëw bokk kom koom maanaam ñoo jaxasoo yi ñuy def bu dee doxalin njaay ak jënd bu dee ci wàllu tool bu dee ci wàllu dëkkuwaay ak faju ak yépp ñun ñoo ko bokk ak waa Kër Massar yaakaar naa li may wax eh, soo leen seetloo war ngeen ko gis fii képp ko fi malade dañ lay jëlee yóbbu la fii ci hôpital bu Kër Massar lépp loo xamante ne danga koy war a wuti Kër Massar nga koy wutee kon Kër masaan ñooy suñuy mbokk yoo xamante ne gën nañu jege gën nañu suñu jaxasoo ak ñoom suñu doole day gën a day gën a baax suñu leneen yu ñu bëgg ci suñu commune dina yokk dañu gis na tamit département bu bees bu commune Tivaouane Peulh ñàgg buñ ko rattaché ak euh, département de Pikine kon ñun suñu bénéfice la moo tax ma am xalaat boobu moo tax may wax mbokk yi ñuy ñaan président Macky Sall mi nga xam ne lii mu def neex nañu ni mu def euh, découpage bi ànd nañ ci neex nañu waaye dañuy ñaan président Macky Sall mu jàpp leen ñu boole ñu Tivaouane Peulh ci département bu Kër Massar su ko defee ñun dinañ ci mën a gis suñu njëriñ Eh, maa ngi dégg nag ñu ne eh, Tivaouane Peulh bu ñu ko boolee ak Kër Massar day ñàkk yu bëri mais man gisuma loolu parce que gis naa ne ñi siy wax yëpp dañuy xool ci pool beeg ak yeneen xeet ndax eh, pôle bi mu ngi distance ak département de de Kër Massar mu ngi sori tamit Tivaouane Peulh ndax bu nekkee département de Tëngéej soo xoolee Diamniadio mooy pool bi ñoom jam Diamniadio ak li ko wër département boobu ñu ngi siy bénéficié wu. kon bu président Macky Sall jëlee Tivaouane Peulh boole ko ci Kër Massar kon Kër Massar dina bénéficier ci pôle bi waa Tivaouane Peulh dina ci bénéficier kon ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ci boor bi ñu sori woon pôle bi dinañ ko gën a kon loolu moo tax ñu woote ndaje bi te ndaje bi nag du du politique du dara ñun askanu Tivaouane Peulh ñi ci ànd ñi nga xam ne eh, bëgg nañu Tivaouane Peulh ñu boole ko ci département bu Kër Massar loolu ñu ngi koy ñaan président Macky Sall. Euh, su ko defee dañuy gën a dañuy gën a neex ndax ñun waa Kër Massar ñoo bokk ndey ñoo bokk lépp